dëggam la nekk donc lan ngay répondre par rapport ak euh, yooyu noonu yëpp mu mu wax. bon en fait euh, j'étais stupéfait bi may déglu sama xarit ji jàkk euh, parce que man je me dis que ne je vis que ne il a la gâchette facile quand il s'agit de parler de Sonko su mu toogee bi léegi Sonko Sonko rek lay wax quoi mais bon euh, ces balles ont ont tous passé de l'autre côté parce que je pense que ne lu muy commencé à faire la tax ñu génne Sonko ci liste yi la wax ça n'a jamais été le cas de Mame ça n'a pas été encore vidé donc euh, du cas boobu noonu ñu ngi def appel euh, deuxièmement ci côté DGE nga ne ku ñu génnee ci liste yi DGE waru ko jox euh, fiche mais est-ce que yow yaa contracté waaye sa bopp mhm. parce que bu nekkee titulaire en 2019 on a vu le cas de Karim Wade nekkoon ci liste yi te pourtant DGE même Thiandé la bii moo ko jox ay fiches donc bu ñëwaatee tey wax lii nii lan mu undu ci gannaaw loolu la ñuy laaj Sonko fi mu nekk ñu ñoo ko fa teg. mais est-ce que Karim ay fiches am taxoon na mu doon candidat. ah déet mais jox nañ ko fiche ci fiche lañ toll pour le moment. conseil constitutionnel moo ko recalé mais du ay du ay fiche. Mhm. donc foofu moom y' a pas de problème. yow ci càndeel lañ toll la ci càndeel pour le moment. donc euh, parti socialiste parce que pour man parti socialiste c'est un cadavre ambulant doublé d'un complément d'objet indirect. déet waay. waay c'est un cadavre ambulant doublé d'un complément d'objet indirect. donc il ne vaut pas le poids ñoom duñu si maanaam ci wolof li ma bëgg wax mooy ñoom duñu suñu ay naataango parce que ñun au moins am nañu capacité génne trois ba quatre candidats te ñu ngi ci ñoom mënuñoo génne sax benn candidat boo xam ne mën na ci parti socialiste bi muy existé nag existé wu leen de mais dee na moo tax ma la cadavre ambulant la